asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di ñëw ci vidéo bu gàtt boo xam ne du gudd day gàtt gars yi depuis une ba léegi yéen a ngi dégg ñu ne jàpp nañ président Ousmane Sonko kenn xamul fu mu nekk may dalal seen xel di leen wax ne président Ousmane Sonko mu ngi biir këram président Ousmane Sonko dëgg la jàppoon nañ ko mais dañ ko jàpp yóbbu ko biir këram actuellement nii may wax ak yéen président Ousmane Sonko moo ngi biir këram toog di añ actuellement nii ñu ngi ci vingt heures quarante et pour ñi nga xam ne dañoo war a seetaan vidéo bi fii ak suba wala guddi moo tax ma leen di jox heure bi actuellement président Ousmane Sonko moo ngi biir këram toog moo ngi ci jàmm dara jotu ko man nag duma leen joxloo information boo xam ne saytuwuma ko ba mu wóor li may wax nii fu leer laa ko jëlee kon patriote yi na ngeen xam ne président Ousmane Sonko. moo ngi këram moo ngi ci jàmm moo ngi ci salaam mais ay garde corps am yi mu àndaloon nag ñoom la ñu jàpp mais moom mu ngi këram mu ngi ci jàmm mu ngi ci salaam voilà loolu moo nekkoon information bi vidéo bu gàtt la woon rek jaa ngeen jëf